je dis souvent que le problème du président Macky Sall, c'est qu'il a un problème de coaching, il a un problème de monitoring, et il a un problème de casting. buy tànn nit xamul nu muy def ba jël ka ca gën a bu ko jëlee jox ko projet xamul nu muy doxalee ak moom ba projet ba yegg fu muy jëm moo tax ay slogan rek nga am. il a un problème de casting, de coaching et de monitoring. Ousmane qui exerce avec nous nous laisse les pleins pouvoirs dans nos domaines de compétences. C'est pour ça que un Abdourahmane qui n'est que porte-parole, un très petit porte-parole, un modeste a reçu la commande de son président pour parler au Sénégal. Et je remercie. Li yàq mandat président Macky Sall mooy fayu toog mandat président Macky Sall yëpp fayu toog moo ko yàq Papa Tap Toto Dodo tam Dodo Dodo tam Tata Tata tam Fanta Papa man daal la lépp loolu moo koy am képp koo xam ne def nga loo warul def ci dëkk bi saax-saaxee askanu Sénégal du président Idrissa Seck moo lay topp mais yoonu Sénégal moo lay topp ñaareel am na nag foo xam ne ñun duñu fa yegg ci chasse aux sorcières maanaam topp fekk loi bu ñu créé woon 1981 kenn mësu ko laal nga dem génne ko pour régler juste des problèmes avec des adversaires politiques suñu dignité républicaine mayu ñu